ñun ñëpp xam nañ ne jàngoro coronavirus bi ba léegi mu ngi ci biir réew yi lii nag waral na teg nañ ay matuwaay yi nga xamante ne képp ki nga xamante ne yaa ngi war a tukki ci yeneen i réew yooyu nga war a jël te li ci gën a am solo moo nekk li nga xamante ne moo nekk COVID-19 certificate bi. lii nag waral na ba nit ñu bëri di dem fi nga xamante ne foofu lañ day jëlee Covid 19 certificate test bi pour ñu mën a am seen kayit ndax ñu mën a tukki ci dëkk yi nga xamante ne foofu lañ bëgg dem ci biir réew mi fii pour nga am Covid 19 certificate bi di nga lu toll ci ñaari junne ak juróomi téeméer dalasi waaye nag li ñuy def ba jot certificate bi nekk na li nga xamante ne nit ñu bëri ñu ngi cee joytu gannaaw bi ñu waxtaanee ak yeneen i nit yi nga xamante ne moom lañ fekkoon ci place yi nga xamante ne foofu lañ nekk di defee bi fii nekkuñ di def dara li ko jëmale ko ci soriwante biñ gën a xamee ci social uh, distancing te benn uh, docteur rek moo fi nekka te dafa waroon a nekk ñaar waaye kenn ki dafa dem ndig moom mu ne nit ñi ñu ngee joytu joytu yu bëri te moom warutoon a ñëw liggéey sax dafa ñëw rek pour jàppale nit ñi man li may laajte mooy ana docteur yi nga xamante ne ñoo waroon a def liggéey bi parce que benn docteur bi fi nekka du mën a toppatoo ñi nga xamante ne ñoo fi nekka ñun luñ fi nekk di joytu moo nekk ne test bi nga xamante ne ñu ngi ko waroon a tàmbale depuis ci depuis six o'clock si suba ñu ngi nii door koo tàmbale eleven ban waxtu nga foog ne ñun yëpp dinañ war a mën a jël suñu test yi ba war a mën a jot suñu results yi dañ war waxante dëgg parce que fii benn nit moomut fii ñun yëpp ñoo fi moom te soo gisee ñu ngee ñëw fii coronavirus bi ma ko waral ndeg jàngoro bi su ñëwutoon ñun duñ fi ñëw docteur yi tamit duñ fi ñëw ba ñuy sonalante kon nag ñu fàttali docteur yi ne tamit ñun ñoo leen nekk di fay te ñoom nekkuñ di ñu bi soo fi ñëwee duñ dee oon nit ñi seen toppalante jàppalante bi nekk ci biir réew mi ñu gën ko xamee ci népotisme moo ko waral da ngay gis ku ñëw fekk ay nit ñu bëri ñu ngi toog mu romba la dem faji soxlaam mu génn si wala nga yaaga fee toog nga gis ku nit rek ñu defaral ko li nga xamante ne moom lañ ko war a defaral moom mu dem te dafa fekk ñun ñu fii nii depuis si suba man nag nekkuma di tuuma ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di liggéey man système bu bon bi nga xamante ne moom lañ fi am man ci loolu lay wax soo fi naree toog lu toll ci juróom-benni waxtu loolu rek war naa mën a tax nga yow nga am jàngoro bi nga xamante ne moo nekk coronavirus te loolu lu koy waral mooy di toog ak ñu ngi bëri yi nga xamante ne ñu ngi am ay feebar yi ci mel ni diabetes te loolu dina waral yow nga mën a am jàngoro bi même soo si ñàkkul sa bakket kon maa ngi wax nguuri Gambie bi ak ñi nga xamante ne ñoo yore wàllum wérgu yaram bi ci biir réew mi pour ñu génn fi nga xamante ne foofu lañ toog di seen office yi ñu ñëw seet li nga xamante ne moo nekk di xew ci biir réew mi te ñu defar ko loolu rek laa leen di ñaan nguur gi dafa war a tabax ay place yu bari yi nga xamante ne foofu la nit ñi di mën a dem defi seen test yi suñ pare ñu teg ci yoon yi nga xamante ne nit ñi dinañ mën a toog ba pare mën a sori wante ndik soo xoolee li nekkut sax anam bi nga xamante ne moom la ñu war a defee li nga xamante ne moo nekk test yi waaye comme que amuñ ay docteurs yi nga xamante ne ñoo war a def liggéey bi loolu moo nekk di waral lii yëpp Gambia nag bokk na ci ay réew yi nga xamante ne ñu ngi jànkuwante li nga xamante ne moo nekk dem kanam astuma su ñëwee si seen bunti wér-gu-yaram yi kon nag ñu ngi ñaan nguur gi ak ñi nga xamante ne ñoo séntu wàllum wér-gu-yaram bi ci biir réew mi fii pour ñu mun a xool naka la ñuy mën a génnee li nga xamante ne moo nekk di xew ci suñu bunti wér-gu-yaram yi